nga ni ok TikTok nañuy defee ay live et il faut comprendre aussi ñii couper ci ban ban état d'esprit nañ toll ñu ni ok comme TikTok la euh, Sénégalais yi defee ay live te le plus souvent boo ñëwee live da ngay wax nekkoo sa kër bu ñu restreindre li nga xamante ne mooy TikTok ba ki nga xamante ni am na am na connexion këram mënul am accès ci TikTok bi. mais Pape Makhtar mi nga xamante ni dafa yore GoPro am wala dafa yore euh, yellow box am wala dafa yore caméra tout simplement wala téléphone am di def live nan lay defee live ci mbenn sans connexion de donne mënut a ne c'est pas possible mënut a nekk léegi Pape Makhtar bu mënul def live à partir de téléphone bi wala en tout cas li mu waroon utiliser pour def live live du am kenn du xam ne xew ci réew mi mais non seulement live du am mais bu amee deux trois personnes yoo xamante ne dañ koy def de manière spontanée taxaw seen balcon gis benn affaire rek ñu ni xaañ def live ñooñu sax bu ñu koy def parce que wifi nañu utiliser ñu ni Pape Makhtar bi nga xamante ni këram amul wifi du ko seetal donc ñooñu nga xamante ni tey jii saa yu benn événement xewee dañuy restreindre li nga xamante mooy les réseaux sociaux ak couper internet ñooñu defuñu ko lu dul pour jéem a censurer te attention attention waxuma nag mooy am mais aussi wax nañ ko mën a boole ci li nga xamante ni suñu ay hypothèses yu ñuy calculer la est-ce que duñu dem ba vingt 2024 ci jour élection ñun ñu connexion amul c'est une question 2024 bisu élection ñu couper éle ñu couper ñu couper ñu couper ñu couper internet couper yenn télévision yi bàyyi fi seen benn wala seen ñaari chaînes yoo xamante ne lu ñu bëgg ñu wax ko ci ay résultats loolu la ñuy wax c'est bien possible c'est bien possible donc vraiment euh, ñi nga xamante ni dañuy jël ay yenn postes yi di wax ay waxu Juan Branco ak yenn wax yoo xamante ne ay considération yu yu yu à la limite sax du ma ni méchanceté parce que yaakaar naa ne mënuñu taxaw dinaa naan dañuy tëkkal seen boppal kooku yàlla lu muy def moom moo ko defal boppam ndax am 10 ans am 15 ans lii ne ci boppam yàllaa ko ci def <coughs> mérite bu mu am peut-être yow amoo ko donc am na yenn yoo xamante ne vraiment nit ñi war nañ ko war nañ ko war nañ ko dépasser loolu daf may permettre sax ma ma ma ma jàll ci deuxième deuxième point bi deuxième point bi mooy euh, prisonniers yi nga xamante ni dañu nekk di def grève de la faim ba kat ci ñoom bu ma juumul Hannibal euh, Djim Cheikh Bara Ndiaye Ousmane Sonko euh, bon je crois kat nañu parce que maa ngi ko doon gis sànq Libération moo defoon une bi en tout cas ñett ñooñu daal jàpp naa leen ñoo xamante ni jamono jii ñu ngi ci ñu ngi ci urgence parce que tout simplement dañ dem ba dañ loof nit. pour nga mën toog fii di wax il faut nga lekk foog nga naan maa ngi gis sax quotidien <laughs> ma jàmbal bi mu ni mu ni euh, Ousmane Sonko euh, kiiwul euh, en fait xiifalul quoi parce que samedi ndékki na <laughs> non mais sérieusement sérieusement quoi wallahi c'est malheureux quoi parfois da ngay da ngay dangay ngay da ngay dangay dangay da ngay da ngay da ngay ruus wallahi parfois da ngay ruus waa eh ki ma comme waxul fàtte sax laa fàtte mi Pape Alé Niang Pape Alé Niang Ousmane Sonko Hannibal Djim euh, ñoom ñoo nekk ak Cheikh Bara Ndiaye ñoom ñoo ñoom nañ transfert urgence euh, parce que dañu dañu sonn ci seen grève grève de la faim bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu doon def alors mi ngi nii mi ngi Sonko évacué à principal dossier sans fin il a fait un malaise Sonko n'observe pas une diète total il a pris son petit déjeuner samedi <laughs> le quotidien non mais sérieusement il a pris son petit déjeuner samedi quoi hmm. non mais sérieux parce que bu ñu demee ba ci réew nat ñu ni mais yàlla baax en tout cas li ñu bëgg wax foofu rek mooy que euh, mi Cheikh Bara Ndiaye wax naa ko léegi Pape Alé Niang journaliste euh, Cheikh Bara Ndiaye chroniqueur mais aussi euh, religieux Hannibal Jim ak ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko. ñoom kat ñëpp amul kenn ku ci am condamnation définitive donc ñoom kat ñëpp bu nekkee da nga bëgg respecter yoon dangay jàpp ni ay innocent nañu parce que dañu bénéficier de lu ñu tuddee de la présomption d'innocence présomption d'innocence c'est important parce que gis nga yoon dafa am nu mu tëddee yoon tant que yow tëjuñu la wu ñu la condamné la pour li nga xamante ne moom nañ lay toppee yow tu es présumé innocent waa question quelqu'un qui est présumé innocent est-ce que war na nekk ci ay lieu de détention moom mu jàpp ni détention boobu dafa arbitraire ba muy def grève de la faim ñu koy bàyyi ci boobu les kas surtout nag bu nekkee kooku dafa am ay garantie de représentation wala de représentativité lu ñu si mun di wax baax na bu nekkee euh, par exemple Ousmane Sonko Ousmane Sonko leer na ñëpp que ni du daw Sénégal parce que moom dafa bëgg jiitee Sénégal ku bëgg jiite Sénégal yaakaar naa ni. bu dawee génn réew mi sax adversaire politique am dañuy sant yàlla dañuy naan kii de yàlla bu mu ñëwati comme ni ñu ko doon gisee ak jamono ji euh, Karim Wade bi nga xamante ne ba mu génne ba tey dugg seegul peut-être sax léegi mu ñëw bon vu que contexte bi changé na donc Ousmane Sonko bu ñuy wax waxu ay garantie moom amul benn garantie bu mu amul donc lan la doon empêcher état du Sénégal ak la justice ñu ni Ousmane Sonko comme présenté na suffisamment de garantie demal toog sa kër dafa am lu ñu lay toppee procureur bi jël na ay charges teg ci sa kaw mais comme dañu nekk ci état de droit tu bénéficies de la présomption d'innocence pas de présomption de culpabilité parce que la présomption de culpabilité n'existe nulle part comme yow tu bénéficies encore de la présomption d'innocence da ngay dem toog sa kër ba bis bu ñu la soxlaa bis bu ñu la soxlaa rek ñu àtte na bu ñu la gisul wala ñu gis la bañ lay gis comme ni ñu ko defee woon atte ko ak dossier Adji Sarr bi gisuñu ko dañ koy dañ koy jugé par contumace contumace boo xamante ni yow yaa ngi xam fu mu nekk euh, bon bref dinañ la woo buñ la woowee jugé la bu nekkee yaa am dëgg ñu jox la ko bu nekkee dañ la war a daan ñu daan même chose Cheikh Bara Ndiaye nga xamante ni juge d'instruction bi sax dafa joxoon li nga xamante ni mooy euh, firndeel que ni mën na am liberté provisoire assorti peut-être d'un contrôle judiciaire Cheikh Bara Ndiaye boobu le procureur mu opposé wu ci mise en liberté bi nga xamante ni moom la juge d'instruction joxe woon pourquoi Cheikh Bara yaakaar ngeen ni bu ñu ko génnee Sénégal wala du moins bu ñu ko génnee kaso dafay génn Sénégal fan la jóg ay terangam ay bien fii la nekk au Sénégal ay taalibeem fii lañ nekk au Sénégal et du kii daw koo xamante ni dañ koy fàttali parce que neexul ci xol nga yor si oto bii jar minimum minimum minimum trente cinq millions ñu taalal la ko ba tey jii kenn waxu la si yan circonstance la oto bi tàkkee kenn waxu la ko nga xëy suba ci ay prétexte yu fallacieux ñu jël jëlee la dañ lay dugal kaso le temps ñuy xool ndegam dañ lay àtte te buñ lay àtte tamit daañ xool ndegam yow yaa def wala defuloo animal jim Hannibal Jim même chose Pape Alé Niang appel à insurrection léegi moom Sénégal képp ku wax ñun la appel à insurrection à l'insurrection képp ku wax ñun appel à l'insurrection appel à l'insurrection kay dafa war am effet maanaam bu nekkee tey ji par exemple man Pape Makhtar damay def live ma ni ñëw leen biir Walfadjri ngeen xeex fa ñu toog 24 heures wala 48 heures après ñu gis ni biir Walfadjri am na ñu fa doon xeex mais mën nañ jàpp ni Pape Makhtar boobu de moom moo initié loolu parce que moom moo woote nit si mais nit ñi lan jug ngeen xeex seen démocratie jug leen ngeen def résistance comme ni ko constitutionnel wootee wala nu nga ko waxee ñun la noonoo wax jooju noonu waroo ko wax ci réew mi parce que wax jooju noonu day taal réew yaay inciter nit ñi pour que ñu génn euh, défier institution yi non je suis désolé le président Macky avant mi nekk au pouvoir mais jëlal ay vidéo am nga déglu ko mais boobu temps mii moom di opposant yi fi nekkoon di société civile yi fi nekkoon di rappeurs yi fi nekkoon amoon nañu sañ-sañu wax li ne seen xalaat te pourtant code pénal bi changé ci diggante bi porondoo li ñuy jël nii tey euh, tey jii di chargé ay nit di tëj ay kaso mi ngi woon ci code pénal boobu parce que code pénal depuis 1900 xaw ma 59 la xaw ma 63 code pénal ba tey changé wul mais ki fi nekkoon président Abdoulaye Wade moom vraiment dafa doon dafa doon jël de la tee nañ fi cercueil am gisoon nañ fi ay image ay nit tee cercueil am di way góor gi dee na suul nañ ko mais jamono yi kan moo xalaat naan da ngay def lool bien que loolu sax jamono yi ko ñooñu doon def sax nekkul woon loo xamante ni lu rafet la parce que vraiment nit moom ay euh, dee kenn ko yéene di kenn du ko ñaanal nit politique politique la mais am na yenn yoo xamante ni yu exagéré la et encore que contexte boobu aussi mënut a justifier mais mun na expliquer parce que jamono jooju noonu ñi ngi naan góor gi dee na sul nañ ko am na ñu koy ñaawlu man bokk naa si ñu koy ñaawlu mais dama yem si ñaawlu naa rappeler contexte boobu noonu ko am na ay nit ñoo xamante ni ñàkkoon nañ seen bakkan tout simplement parce que l' ancien président avait voulu euh, briguer benn mandat boo xam ne war ko woon briguer loolu moo nekkoon contexte boobu peut-être mun na nekk ay réactions yu disproportionnées mais en tout amoon na loo xamante ni mënoon na ko expliquer alors jamono jii nag président bi fi nekk di Macky Sall. nekk garant des institutions moom ak ministre de la justice tey jii ñoom ñooy jël nit ñi di tëj pour un oui pour un non lool du samay kàddu rappeurs yi ñoom ñoo dem audience ak le président Macky sàll mooy ba ñuy njëkk libéré Karim Gueye avant ñu koy jàppaat ci kaso bi te loolu moom moo ci loolu moo ci doy waar demal ci Abdou Karim Gueye demal ci Guy Marius Sagna mi nekk député demal ci keneen ak keneen ak keneen Abass Fall bu ma juumul euh, le le gars le maire de Thiès Nord euh, Birame Souleye Diop. ñoom ñëpp am nañu ay dossiers yoo xamante ni entre guillemets pendant en justice ñoom ñëpp tey jii am nañu ay dossiers yoo xamante ni ñu ngi leen di xaar ci yoon te ba tey àtteew ñu leen te boo moytul seen àtte peut-être deux mille après deux mille vingt quatre lay doon Abdou Karim Gueye moom xamoo ñaata liberté provisoire la am ñaata LPL di signé xamoo ko te terewul. wala tey bu nekkoon bañ ko joxee benn liberté provisoire moom dafa doon jéem gi dafa doon jéem a génn réew mi mais ëllëg nga ni ok kii doot mu ko joxee liberté provisoire mais koo xamante ne ba nga ko joxee liberté provisoire ci réew bi bii la toog li nekk xalaatam mu koy wax saagawul kenn sàccul fenul nga xëyaat suba chargé waat procureur bi nga xamante ni il tout le tout puissant procureur de la République mais vraiment le tout puissant parce que puissance bi mu am dara am ko ci réew mi ñëw chargé ko ibbi euh, yóbbu yóbbu dossier visé ay infraction yoo xamante ni euh, juge d'instru juge instructeur bi mënul lenn lu dul demande ñu placer la ci man euh, sous mandat de dépôt mënul leneen parce que ay mbir yu grave nañ lay toppee léegi kooku tey mu ñëw deux ans wala trois ans après kenn nit àttew ko ñu jiraat yenn charge tegaat ko ci kaw est-ce que loolu yoon la bu ñu wax ay waxu lenteur administrative bu ñu wax ay waxu le temps de la justice xaw ma lan ak lan ak lan parce que ba ñu bëggee àtte fast track Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko dañ ko def ci fast track dañ ko def ci fast track ba sax bëgg àtte waat Ousmane Sonko alors que délai bi nga xamante ne moom nañ ko joxoon pour mu def appel délai bi jeexu donc on se rappelle quand même de notre histoire récente donc réew bii bu nekkee Sénégal réew droit la comme ni ñu koy waxee lan moo tere woon tey ñi nga xamante ni dañ leen jàpp te jàpp ñu leen flagrant délit xam nga flagrant délit tey jii par exemple mooy ñu fekk la ngay wax comme ni may defee nii live ñu ñëw fëgg bunt bi may may def live ba si yàgg saaga kenn saaga Macky Sall wala saaga kenn ñu fëgg bunt bi ñëw jël yóbbu ni ma flagrant délit la flagrance la fi nga doon waxee nañ leen ñëwee kirtib jël yóbbu wala ñun dañ la fekk nga sotti euh, essence wala carburant loo mën di sotti di taal na fi ngay taalee ñu jàppale yóbbu flagrance la wala ñu jàppale comme ni ñu jàppee woon Bougazelli flagrant délit mais ci ñoom amul kenn koo xamante ni dañ koo jàpp ci flagrant ñoom ñëpp ñu ngi leen placé ci mandat dépôt mandat dépôt boo xamante ni kenn xamul kañ lay jeex Fadil Keita maa ngi koy wax léegi. Euh, Abdou Karim Gueye Cheikh Omar Diagne ak ñeneen ak ñeneen nit dof aussi même chose ñu tey jii nit dof bu nekkee lu muy saaga noonu euh, moom moo tax ñu koy ñu koy topp mais loolu vidéo boo xamante ne mi ngi disponible woo leen ko ngeen teg ko ci kanamu àttekat bi ci saa si mu àtte ko bu nekkee nit dof dañ ko war a daan ñu daan ko bu nekkee dafa war a ñibbi kër mu ñibbi këram quoi de plus simple de plus normal maa ngi koy wax léegi président moo recevoir woon rappeurs yi ci recommandation yi mu leen fa joxoon mun leen wax leen avocat wu ñoom euh, Abdou Karim Gueye mu demandé liberté provisoire ñoom dinañ ko appuyer waa kii peut le plus peut le moins koo xamante ne boo demandé liberté provisoire mu appuyer ko nga génn bien que Abdou Karim Gueye premier